amma la yaliqu li kamali wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almawjudat sayidina wa xabibina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi gannaaw ba nu leen nuyoo ziyaara leen ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal nu jàmm defal leen ko def ko ci àddina bi yépp ñi ngi ziyaara bu baax kilifa diine yépp di ci jiital sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala mu yokk fanam te dëgëral ko noonu la ñuy ziyaare seex siidil muxtaar ñaanal ko yàlla subhaanahu wa taala moom tam yàlla dëgëral ko yokk ko waaye dugg ci këru diine yëpp yi ci Sénégal yëpp bàyyiwun kenn di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla subhaanahu wa taala ngeen ànd ak seen mbokk seen Alxaaj Malick ci TFM religion ci seen émission bii ñuy wax al azkar al azkar nag li ñuy wax bis bu nekk li ko tax a jóg mooy jullit bi toog lu mu ndaw ndaw lu mu gàtt gàtt li mu soxla ci muy nécessaire yi nga xam ni wala sax lu importance la waaye comme ñenn ñi du farata comme ni julli nekkee farata ci moom ñu di ko indil incha allah mu di ci nga xam ni day nekk sunna yoo xam ni da ci dab boppam mbokk yi li tax loolu jara sonne mooy farata dong dañ wax ni ku ci yem ah mën ngaa dem ba yàgg nga mànkeel ko waaye itam farata ak sunna dong ku ci yem mën ngaa dem ba soofantal lenn waaye ku sonne farata sunna ngëneel yàlla mën na la defal tawfiqul ilahi su ko defee inchaa allahu nga lot moo tax eh, sunuy seet sunu sëriñ Euh, cheikh ahmed tijani chérif gis nga lépp loo xam ne dugal na ko ci weer dam week yu ni mel da koy def ci ginnaaw farata seetal ki nga xam ne julli na farata ba noppi toog yor kursam laazim ak ya ca aju yépp wala mu wazifa ak ya ca aju wala mu jug sax fajar ñu lay wax jugal fajar moom mu ni la lu jiitu julli gi jógal jiital defal sa waqafu qur'an ah jiital sa laazim ak yooyu kon xam nga ni kii moom fukki xelam ak ñaar xalaatul di soofantal farat wala sunna sagam ngëneel lay sonne noonu ah loolu moom gis nga ko moo tax ah, ñi nga xam ni léeg-léeg ñoo ci wax luñ xamut ñu nu ko déggee woon ci jamono yële ci jenn jëmm bëgguñu sax tudd tur ak yooyu di ko jox importance waaye loolu dafay wane ni rek dafa umpale nit nag soo gisee mbir umpale ko da ngay dem ci mbir moom a gëstu ko ni yéeféer yi léeg-léeg umpalee euh, diine ji rek nga xam léeg-léeg ñu dem gëstu ko sax ba fa jaare fa tuub loolu dafay laaj jullit bi su réeree mbir na dem gëstu lool loolu la nu alquran digal xabaar soo ko gisee wala ñu indil la ko wala naafeq indil la ko demal nga gëstu moo tax maa ngi invité jullit yëpp ku ci gëstu rawdu Cheikh euh, euh, tariqa Cheikh na Ahmad Tijani xutbi lmaktumi wa badaxi lmaktub taajul aarifina wal awliya alkibrit al ahmar di nga xam ni tariqa bu am doole la li Seydi Alxaaji Abdul Aziz Si rahimahullah wax rek ni tariqa lañ koy tuddee rek waaye ëpp na ko sax noonu rek lay demee kon mbokk yi tey seen azkar yi nga xam ni moom lañ leen di indil ci seen émission al azkar Eh, tey ñi ngi jël azkaarul sabah muy nit ki su yeewoo lu mu war a def nit ki su yeewoo rek lan mooy li jëkk ci moom moo tax dañ wax ni islaam dafay wax ni sax nit ki ne jël lalam féetale ko ba nga xam ni su ne cëpp ci lalam dafay janook penku loolu farata la jullit ñi war nañ ko sonne mook tam kiy tabax douche moo tax même maçon biy tabax war na sonne ci diineem douche boo koy tabax waroo ko def position boo xam ne nit kii su toogee ci duus bi dafay janoog penku déedéet dañ tere loolu wala su toogee ci duus bi wan penku ginnaawam dañu tere loolu li a dagana mooy boo toogee ci duus sa wet fii moo war a féeteeg penku penku bi waroo ko juutu waroo janoog moom loolu jullit war na ko sonne noonu tam lañ bëggee jullit bi su tëddee ba yeewu ñu sëpp ay tànkam mu janoog faas penku loolu jullit daf ko war a sonne su ko defee su janoog penku nag lan lay def mooy dafay jàng qul huwa allahu ahad bismillahi arrahmani arrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad lu mu cay teg bismillahi arrahmani arrahim qul audu bi rabbi alfalaq min charri ma xalaq wa min charri gaasiqin ida waqab wa min charri nafaathaati fi loqad wa min charri xaasidin ida xasad lan la ciy teg qul audu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilahi nnaas min charri lwaswaasi alxannaas alladi yuwaswis fi suduri nnaas min aljinnati wannaas lii waay waay jullit bu nekk war na su yeewoo mu jëkk ci làmmiñam ñu ni lum ciy teg mu ni ayatul kursi ba mu jeex allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum laa taaxuduhu sinnatun wala nawm lahu ma fi lsamawati wa ma fi l ard man za alladi yashfau indahu illa bi idnih yaclam ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuxituuna bi cheyin min ilmih illa bi ma shaa wasia kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu xafduhuma wa huwa al aliyu al azim bu mu ciy teg amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi walmuminuuna kullun amana billah walmalaikati wa kutubi wa rusul la nufarriqu bayna ahad min rusul wa qaalu samicna wa atacna gufraanaka rabbana wa ilayka almasir ba mu jeex ah su paree nag su paree loolu directement mu ni asbaxnaa wa asbaxa almulku lillahi walhamdulillah wa laa ilaha laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir mbokk yi su paree loolu ma wax loolu lay jàng ak rabbi asaluka xayra maa fi hada alyawm wa xayra maa baadahu wa audu bika min charri maa fi hada alyawm wa charr ma baadahu rabbi audu bika min alkasali wa suui lkibari rabbi audu bika min aadabi fi nnaar wa aadabi fi lqabr loolu na ko def moom jullit bi su wàccee teg ay tànkam ci fi mu tëddoon lii ma wax na ko sonne te na ko jëkk a def beneen bi mu ciy teg allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wa wa'dika mastata'tu a'uudu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dunuba illa ant boobu tam benn yoon la koy def bu paree mu ni raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan boobu ñetti yoon la koy wax raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan su paree mu jàng allahuma inni asbaxtu ushhiduka wa ushhidu xamalata arshika wa malaikata wa malaikata wa malaikataka wa jamici xalqika annaka anta allahu la ilaha illa ant waxdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk mbokk yi jullit bu xëy balaa def dara comme ni ko sama mbokki sàmben yi di defee di wax ni man bala maa def dara naan kafe déedéet bala ngaa def dara waxal lii ba noppi nga xam ni duggaat nga même bu sa diine sa islam feebuloon maari day taali même boo mortatoon ci guddi gi te yëgoo ko bi nga xëyee rek duggaat nga ci islam bees comme nin koy waxee ci qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil nag loolu mooy li jaadu boo ci mënee teg bii baax na allahumma ma asbaha bii min nicmatin aw bi ahadin min xalqika fa minka waxdaka laa sharika laka fa laka alhamdu wa shukru allahu akbar xoolal ki xëy rek amul dara lu muy def lu muy jëkk a bàkk yàlla subhaanahu wa taala ni bërët ci lal teg sa ñaari tànk bàkk yàlla subhaanahu wa taala loolu dayo gi mu am su ko jullit ñi xamoon ah loolu rek la ñuy def wala tam ba tey bii tam ci la bokk xasbi allah laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azimi hasbiya allah laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim lii nag du la tee def benn mbir boobu cette fois nga koy wax après nga wax bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi lsamaa'i wa huwa samiu alalim boobu ñetti yoon bismillahi allazi laa yadurru maa ismihi sheyun fi l ardi wala fi lsamai wa huwa alsamiu alalim bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi sheyun fi l ardi wala fi lsamai wa huwa samiu alalim loolu sëriñ bi soo xëyee nga def ko ñetti yoon boole ko yii ma waxoon qul huwa allah falaxi naasi ayatul kursi amana rasul nga boole ko billahi boo yoree oto dinga mucc doo def accident soo yoree barabu liggéeyukaay moo xam kees nga yor képp ku def njombe maanaam xam nga am na ñoo xam ni ci caay-caay la ñuy dox suñu xëyee wut nan ay ndomba defar ko ba ku nu nuyu loo yor nga jox leen ko ku nu nuyu am maa sax ni ndoon waxee sa waay yàllay dem ak yooyu yépp soo xëyee def lii ma wax dinga ci mucc ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ndax yeneen ci bi sallallahu alayhi moo ko wax soo xëyee itam di nga xëy ba ngoon doo def lu la dugal kaso waaw soo xëyee suba ba ngoon bu dee oto nga yor mën nga mucc ci doo fiir nit xam nga musiba yi dal nit su xëyee dafa bari léeg-léeg nga gis koo xam ne dafa xëy rek jóge këram am yéene liggéey wàcc sàccul fenul moyul yàlla deful dara waaye yàlla dogal eh, muy daw rek ci otoom mu mbëkk nit mu faatu mu yendu ji tey ci loxol yoon ba fanaani tey kaso mbokk yi soo dee def lii ma wax nga xam ni yonent bi moo ko wax du dara loo xam ni jar na ngay dem ci maaman wala ngay dem ci moo xam nun ko tuddee ah lii soo ko defee yàlla subhanahu wa taala sàmm la même soo koy def bis bu nekk respecté ko yàlla subhanahu wa taala dina la sàmm ba sa dund mën nga ci bañ am problème nattu nag mbokk yi du jaas mais nattu mooy ki nga xam ni wér na ko ni ko lii nu ko tuumaal defu ko loolu mooy natt pinir boobu daanu ci sa kaw ndax ñii atte ak ñii jàppaate ay nit lañu léeg-léeg ñu juum jàpp ko defu dara gis nga la plupart defkat sax dafa jafee jàpp parce que su mi ngi def bis bu ne ay pexe pour jéem a mucc ci kiy jàppi waaye yow mi nga xam ne musiba moo jékki-jékki rek dal ci sa kaw ah loolu dinaa ci dugalaale question fa tabaarakallahu am na ku yóbbante ku génn barki démb cent mètres la nekk wax ni ko fexeel ba gisal ma imam ndeysaan mu laaj ma ni ma laaj naa fu ne waaye ma dem ci youtube bi rek vérifier ba gis sa numéro après ci la ci la ma woo ñu waxtaan mu ni ma am na ñu fa nekk ñu bari dañ lay bégee fa tabaarakallahu dañuy seetaan tam euh, sunu émission yëpp mu ni nag lan laa leen di wax pour ñu di ko def foofu ndax jaaxle ah ma ni ko nañuy faral di bakk yàlla di ko sant di julli ci yonent bi sallallahu alayhi waaye tam nañuy wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin laa gis nga ku nekk ci problème di faral di wax loolu yàlla dina la dimbali ba problème yooyu yépp dinga ci génn ndax yeneen yonent yàlla yunus ba ko jën jawan ne dugg ci géej xam nga dugg ci géej rek beneen problème la ku ne xam na sunu mbokk yi jot a jaar ci géej gis ni mu yaatoo te amul banqaas ah ku ci dugg xam nga lan mooy tàbbi ci géej waxuma sax diig waaye tàbbi ci rek tàbbi ci rek ñi sunu xel dem na ci ñi nekkoon ci batala joolaa yal na yàlla yërëm ñëpp te jéggal leen te noonu la koy defee ndax yàlla wax na ko ku des ci lakk des ci géej ak yooyu te fekk jullit nga nañ ci bàyyi xel gis nga ko léegi nag kooku loolu lay def xoolal yonent yàlla Yunus jën a ko wan dugg ci géej loolu xanaa doy na beneen jën wan na ci jën woowa kon yow nga nekk ci ñetti biir biiru jën bi la wan biiru jën ba sa topp waaye biiru géej waaye loolu la ko yàlla wax bi mu ko defee rek yàlla subhaanahu wa taala ci kattanam ak mbaaxam jën wee guqi ko beneen ba guqi ko beneen ba guqi ko mu génn géej gi guqi ko gis nga ci barke boobu sax ci la yàlla defee ba fii may waxeeg yow géej lu dugg ci biiram mu guqi ko moo tax soo xëyee nag def lii ma la wax jàng ayatul kursi qul huwa allahu ahad falaqi naasi amana rasul ak yooyu soo yendoo jàng bismillahi alladi laa yaduru ma ismihi chey fi l ardi fi sama wa huwa samil alim kooku jullit bu xëy di ko def jullit bu xëy di ko def yàlla subhaanahu wa taala dina jël loxoom bu tedd boobu ak malaakaam yi ñu escorté mas naa ko wax benn kilifa fekk ñu koy jàngal kaamil mu wax wax ju xaw a doy waar daan bu fi dara des waaw li ngeen di lekk su na lépp jeex ma xaw gis sama bopp nag xam nga taalibe rek ma daal di jël palaat ñam ñaari kuddu teg mun ma e imaam dama ni bu fi dara des fii amul taalibe buñ ko jox ma ni ko loolu danga koy wax xar yi ak bëy yi soo bañee ku desal dangay jox nit ni ko sàkkal loo mën a lekk ma ni ko na ngeen respecté ñiy jàng alquran ak nitu diine yi ñoom ñoo wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al ulama warasatul anbiya waaye man fi ma doon waxeek moom mooy boo woowee nit mu wuutule ci li nga mënul jàngal la kaamil ba mu àgg yéeneel la ko sa way dawlu wala ci sa soxla mu pare nga bëgg ko kii ah ma ni ko nag man moom jeexaluma mënuma koo jeexal desal naa ko te mi ngi nii tege waaw ah, mu ma ni ko boo bëggee ma ni ko gis nga nii premier ministre bii ci senegal ak respe jox naa ko respect bu mag gis nga ni muy dawee motaar yi daw di ko topp di def wii wii man ko est-ce que ñi ngi koy defal eh, Souleymane Ndéné Ndiaye wala wala keneen wala Hadjibou Soumaré rek ñoom seen mu ni ma déedéet man ko voilà parce que du jëmmam mais dafa am lu mu gàddul état moo waral ñu sàmm ko ma ni ko loolu nag la yàlla di defal taalibe yii ngeen gis ci daara yi ak nit ñi nga xam ne ñu ngi dund diine moo tax ñoom tam war nañu am fayda bu baax a baax a baax parce que nit ñi dañu gaaw foowee nitu diine ci ci waxin waaw tey bu ministre ñëwoon léegi àttan na laa wax jugal sa chaise may ko mu toog te moom ëpp la dayo kaaraange goo yor gu mu yor rek yor nga ku ko ëpp sa bës dafa feeñut rek loolu tax taalibe bi dugg ci kër gi ñu sarax ko maafe kii sarax ko dëxin kii sarax ko suppu kànja mu boole yépp lekk du ko wàññi dara ki nekk ci ndeyam ak baayam nag waxtu wu ko defee hôpital lay yenn moo ki waa kër kon nag loolu dafa mat a sonne moo tax maa ngi tolloon ci ñi nekk ci barab yi ñu jàpp leen nga xam ni keroog dañu fa dem di def waxtaan ak ñoom euh, parce que dañuy jékki-jékki dem foofu def waxtaan ak ñoom wallahi bis bi ma njëkkee dem waxuma parce que dama xool ay jëmm yoo xam ne bu dee diine bu dee diine kenn ëpp leen bu dee rek xam-xam am na fa ñoo xam liñ ci yor du jeex bu dee yiw am na ci ñoo xam du ñu siggi xool nit kon nag nga xam ni yàlla mooy nattu nit léeg-léeg musiba boobu dal ci kawam mu dem foofu am na ñoo xam ne itam dañuy juum ñu yóbbu leen ñoo xam ne ay nit ñoo rab bi pexe ba dugal leen ca ñu dem foofu waaye nañu ko sante yàlla rek waa ala kulli xaal nit fu mu mën a ne ci àddina na yëg ni yàllaa koy gunge moo tax maa ngi leen di wax ñu dëgër li tax ma taxaw tuuti ci ñoom mooy seen yóbbante yi dama ko jot te daf ma marqué itam ñi ngi leen di gunge ak sunu xol di yëg seen nekk foofu di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ngeen génn fa nu mu gën a gaawe te kenn bañ fa duggati ñi nekk tam ci hôpitaux yi noonu léeg-léeg nga gis nit ku feebar tëdd waaw nit ku feebar tëdd parce que nit ñëw na ci man ni ma naa ko ñaanal yàlla mu tane mu ni ma ndax hôpital la nekk gis ma mu am yaakaar rek yàlla bu yàlla tas yaakaar te ñun tam noonu la ñu amee yaakaar ci suñ kilifa yi ñu dinu ñaanal yàlla subhaanahu wa taala kon jullit du des ci yaakaar du des di ñaan yàlla subhaanahu wa taala léegi nag su fekkee ki nga xam ne dafa feebar mën na ci dolli allahumma aafini fi badani allahumma aafini fi sam'i allahumma aafini fi basari laa ilaha illa ant boobu tam mu def ko ñetti yoon ah? jàng tam allahuma inni audu bika min alkufri walfaqri wa audu bika min aadabi alqabri laa ilaha illa ant yi yëpp may lim ci ci ci ci sabaaxal suba yi ci suba yi la bokk mën nañ ko def ñetti yoon ñetti yoon lañ koy def allahuma inni asaluka afwa wal aafiyata fi dunya wal axir allahuma inni asaluka al afwa wala aafiyata fi diini wa dunyaaya wa ahli wa maali allahumma astur awraati wa amin rawaati allahumma axfadni min bayni yadaya wa min xalfi wa an yamini wa an shimaali wa min fawqi wa audu biadamatika an ugtaala wala an ugtaala min taxti mbokk yi seetal ñaan yi nga xam dafa ëmb lépp waaw ñaan yàlla subhaanahu wa mu jàmmal la ci àddina ak alaxira ñaan yàlla mu musal la ci fitnay bàmmeel ak yu ca aju waaye ñaan yàlla tam mu jàmmal la ci sa diine xoolal tey am na koo xam ni deful benn bakkaar lu may dafa gëm yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ñu di ko ci punir xanaa kon sa xel dina dem ci euh, sunu mbokki jullit yooyu ñu doon sonal barki dem te defuñu benn bakkaar lu may gëm yàlla mi leen fi wàcce rek di ko wéetal di ko jaamu kon nag su la yàlla nee soo xëyee jàngal ñaan yi gis nga lépp la ci dëxëñ ak tam saw ñañ am na koo xam ni gis nga bu jëkk sunu mag ñi dangay gis koo xam ne day am kër kër ga am na fa ñeenti soxna am juróomi jarbaat fukki surga ak ñeenti gàtt ñeeg ñaari euh, miina daan doole kër gi jàmm ne fi ñuy jàmmoo lépp di dox nga gis tey yow rek la ak madam ak bébé yi fa tabaarakallahu kër gi du nekk ci jàmm mooy danoo soofantal ñaan yàlla mag ñi bu jëkk buñ ko daan def seen kër yi dañuy yi yépp buñ yeewoo borom kër gi ñemewula seqi tànk te deful li gis nga ñaan gi dem na ba dugal saw ñoñ waaw fu sa ñoñ mën a ne nag am na ñoo xam bokk ak ñoom rek garanti la wallahi am na ñoo xam bokk ak ñoom gaara doo ko xam nag parce que nit ñi defe nañ ni ndimbal mooy génne ci sa poos joxe bokk na ca waaye am na koo xam ne noonu lay xëyee toog ñi mu xam ñépp mu di leen tudd par benn di leen ñaanal yàlla am ñoo xam ne dañuy dem bu dugg xëlwa sax ñaan yàlla képp ku ma mës a xamanteel mu ni mu may ñaan loo ci yàlla subhaanahu wa yow yàlla yàlla na nga defar mbiram gis nga ko kon nag nga ñaan ci ak say saw ñooñ waaye xoolal sa alal defe naa kon ñaan yi bu ko nit ñi respecté woon surtout commerçant yeeg yu ca aju ah seen marché yi du lakk ñuy xëy bis dugg ci marché wàcc tëj sa magasin dem ñibbi sa kër xëy ñu ni la marché bi tàkk na te dinañ ko indi nag am na ñaan yoo xam ni ku koy ñaan sa barab boo barab boo ko def sax du lakk kon nag yooyu dafa mat a bàyyi xel te nit bu yee liggéey ci courant ak courant ku ne xam ne ni mu tëddee nga mën a tëdd ba ko fa loolu war ngay lay taayee sa bopp ci ñaan yàlla subhanahu wa taala mu ni bi ci des tam sutura dugg na ci ñaan sutura nag mbokk yi dafa mel ni jamono bii moom ku ne war na cee bay tànk tubéyam ndax dafa ñàkk kenn suturaale tur kenn kenn kenn bari na ku ñëw nuyu la di saafonteeg yow lu mu la xamal ba wili pande ko la bëgg ki nga xam ne dalay wax sax musiba di ko ragg sab der te xamalu la dara léeg-léeg ma tooñ gaa ni leen kuy naan ngelaw njar mu sedd ànd ak galaas du mat a wax kon nag lu nu góorgóorlu rekk ci ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu yokk sunu sutura doyut mu nitam yàlla wattunu ci sunu côté ndeyjoor ak sunu côté càmmoñ waaw surtout côté ndeyjoor ak sunu côté càmmoñ ñaan yàlla subhaanahu wa mu wattul nu boppam wax naa ci leçon bi passé altine passé ni la fallahu xayru xifdan wa huwa arhamu rahimin yàlla ku mu sàmm nga mucc waaw moo tax ah, mag ñi dañ daan wax ànd naa ak yàlla subhaanahu wa ah, su ko defee nag yooyu farata la ñaan yooyu farata la moo tax yàlla dafay wax wa in lam tafaal fa ma ballagta risalak loolu wax yonent bi wallahu yaasimuka min annaas day def li war a def yépp yeewu sangu julli euh, bu dee euh, fi tariqatina hada sunu tariqa cheikh na tijani nga nga nga nga nga nga gis nga ni mu ko tënke moom da ngay jiital sa sa xizib bis bu ne ñaari xizibu alquran taalibe cheikh boo gis li mu war a def su ko defee su ko deful mooy mu jàng ñaari xisbi alquran su ko mënul sax day wut saar yum ko wuutoo di ko def kon yooyu farata la su paree mu soog a jàng yi yépp gis nga jiital laazimam ak yooyu yooyu dama ko ci junj waaye dafa mel ni ñu may def siñaal ni lin nu may ci waxtu jeex na xanaa di leen jéggalu bu baax a baax di wax ni yéene bi nu am ak yéen mooy lépp loo xam ne dafay jural nit yiw ñu indi ko partagé ko ak yéen yéen ñi ñuy seetaan yéen ñi ñu ngi nuyu ñëpp nag waa Kër Masaar fàttewul leen waa Tiwaawan nag rawatina ñi ngi nuyu ñëpp bëgguñu lim sax di juum alxaaji Babacar mbay ñi ngi koy ziyaara di ko ñaanal yàlla ak sunu sëriñ ak sunu xalifa bu bees bi yal na yàlla dëgëral ko te yal na yàlla yokk ko dafay nit ku baax nit ku yàlla dimbali soo ko miinul nag da ngay defe ni sax dafa am xada mais ñi nekk njabootam xam nañ ni ku ko gën a laabir gisuñu ko incha allahu ñiy jooy bàyyi sunu sëriñ sëriñ Abdul Aziz si léegi seen rangooñ fer ndax kii ko wuutu mat na ko sëkk nan ko ñaanal wér ak dëgër incha allahu fi mu bëgg a yóbbu mission maamam bi mission na Tijaani bi yàlla dimbali ko mu yóbbu ko fa jaalana allahu min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsanahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله